munyat na ini bisora fusona funare assalamu alaikum bola be mi kenji ga teka gar na kanya gare a bisi wati boy baji wati gasuna a ya nyafunu ne ya program anya bo uno hogale la inda kilti inda walu sire tosan a malka buya ya di e ncd afecha ji ga yahonak ah ko tumin añu warde nak ah bi programme lan demé tabaski ah bi lak programme ga pambal na ne gisot waxel mi be labew mi be añu villa tu mi be ponkol ci na ma ci tu bi organiser wa wala kan tabew ken sat katar de fan go du duña tu mi woro demun ci na bamun ci tu mi be rogo programme mi war ah la aw ki yaay aw dekati tipa wala pambal tv yaay xaj wati pour que ko waxtaan ak bisi war kon bisi war ken sel wakatare be tardi be tardi na nya funone yu a de hay ko moskala kes kon inde beesa funone be su wot ga waaw o mo ah, mi temi kanak ya ah, ya a vip ya 2000 o mo ya temi waaw kon ina kon ulu ko beesa war ken sel wakatare ko bi be wula be ga waaw en nya ne ya laay e nya laak nak ken woro kasi ken ga waaw enda it wula me rindu yax ci nak ci comme da ene da ɓo hoteso da ene haɗak enes mbawa raw o ñawoñde inchallah waaw mi gërëmin ko mi sant ko nekk waaw alhamdulillah waaw waaw waaw ba ɓaperane no monsieur le maire yufuno ne yayi ngala mairie pambal yayina ɓate ko hibbisa kono kono ñafuno yooɓi en tant que monsieur no ɓe dayite ko ɓe ɓula ɓe warde kaaj ɓe sigilaire de heure no ɓoy funo ne yaɓa ngala wallu organisation ni funo ɓo temin a yiya kagga ɗo e la so ɗohowoga koye yaɓo funo yaɓe tuula eɓa warnala kono ɗiɗɗo ña funone yaɓula waɗo ɓe kono tuulate ɓe ɓowan koye gueh ga ha ɓoɓi ɓe connect ga ga besewor connect tel ga haj connect a ña funone it bon jammana hewal na muccu naka mucclok voilà mais content ga beesi trop nga ɓoytum o ñeer jërëjën jëf waaw mbokki xar yi kenn ku ne maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant waaw di wax ne bisu tey bi rek mooy bisu mbégte mooy programme bi ndax ah ginnaaw sama papa moo fi nekkoon te nekkatu fi yàlla dogal ma nekk ci aar bi muy culture séeréer bi yàlla dogal dañu am programme Pambal lan demee tabaski ñoo ngi woo waa Lexar yëpp ah, di woo xale di woo mag ak ndaw ñu xamal ne bés ba bés bu mag la ah waa doomu Lexar ñoo ko organisé kon ñun ñu nekk waa Lexar war lañ ne mën a jàppale ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn mag ak ndaw ah bés bi nag xale yi 1000 francs la VIP 2000 xale yu ndaw ñu ngi paas téeméer kon bu lépp nga fax lépp dinax yow foofu te kenn bu mu tardé bu kenn xaar ñu lay nettali bés ba kon ñoo ngi leen di gërëm bu baax bés ba ñu ngi koy parrainé monsieur le maire en tant que monsieur le maire mu dëkk biir Lexaar kon kenn ku ne na xam ne bés ba bés bu rëy la na ñëpp ñëw na ñëpp a solo rafet ñu ñëw ñu ñëpp ñu bigalante foofu ñu xam ne bés ba ni nekkoon rek mooy nekkaat wala lu raw loolu dina amaat ci bi kàttanu yàlla ñoo ngi woo wàlli xar yëpp woo fan si yëpp surtout ma duñaan gi ma nekk nii maa ngi woo mag ak ndaw ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci combat gi ñu xam ne combat gi suñu combat la suñu ndamu ëllëg la it ñu jàppale waa ñi nga xamante ni waa Pambal TV la ci seen liggéey bu rafet bi ñoo ngi leen ci euh, gërëm di leen sant bu baax a baax waaw. waaw bés bi moom ñu ngi koy waajal waajal bu bu bu boo xamante ni bii euh, kawe na ma ndax it dafa doon loo xamante ni mu musul am ci yow bis bu ko nit ñëwee di la ko proposé yu mel noonu ah foog nga nga nga bég ci daal waaw. ah. waaw aada ak cosaan dina fa am ndax aada ak cosaan moom moom la ñu moom la ñu am mooy suñu culture. waaw maa ngi ci woo la aw fii kii muy sama groupe bi ah di ci gërëm it sama ménageur la la sama ménageur Zak Zak Thiaw waaw maa ngi leen di woo ci bés bi ah kenn ku ne préparé li nekk mu nekkat ci kàttanu yàlla waaw. waaw group bi La Afrique Jean-Jacques Thiaw Lewo muy sama guitariste bi ah, tëggkat yi Moïse moo ci jiitu ak ñu mu àndal waaw Omar Dione ak Omar Dione man may Omar Dione Samba Mbaye mu dëkk Pambal suñu suñu mbokk artiste la ñoom ñoo bokk ci bis ba kon kenn xam ne xam ne bis boobu du bis boo xam te ne bi dina yomb waaw incha allah ñoom ñëpp nañ fa teew ci kàttanu yàlla waaw kon bis ba suñu bis la ñun ñëpp ñu jàpp ci daal waaw incha allah waaw ok jaajëf